sa ak sa sa sa sa sa champion Modou gis nañ foto yi viral mu aji ji woon ñu koy ñaanal yàlla lépp lu mu fa ñaan rek yàlla na ko suñu boroom nangu ñu koy nuyu bu baax moom ak uh, waa écrit bi yëpp mais coow li bari na de saa Modou day bàyyeeg du bàyyeeg xelam nekkatul ci bëreeg dégg naa sax indil nañ ko benn contrat mun leen may leen ma ma noppalu ba ci kanam sama xel nekkul mais xam nga tey Modou daa um rajo woon rek daa demoon rek xam nga mm-hmm. eh, bëri ko fi def bëri na taxul ñu bàyyi làmb gis nga Modou wax na leen ko lu du benn ñaar. bi mhm. muy dugg ci làmb tàggul kenn bu buy bàyyee. Mhm. du tàgg kenn li mu war a def yëpp mu ngi koy def. émission mhm. bu dégg mi ngi entraîné mi ngi def lépp. bis bu waree bàyyi dana taxaw ne leen bana mais waxagul kenn bàyyi naa tey mu ngi ci làmb. dëgg yàlla am na droit itam ne day noppalu tuuti démb rek ñoo nekk démb ci guddi. ñoo nekk wax dëgg yàlla mais mi ngi ci jàmm bu baax daal amul benn problème. mais fi mu ne nii kan mooy potentiel adversaire am du moment où que ne nii jël na Balla Gaye léegi kan. kan la waaw bu noppaloo nii ba combat yi daw rek làmb yi tijjeeku ndax combat yi fi nekk bëri na Eumeu Sène Sa mu ngi fi waaw Balla Gaye kii Tapha Tine ñoo war a bëre. Mhm. yeneen combat yi kanam kay. ñu bëri nee nañ Sa Thiès Modou Lo la. waaw ah, lamb la kay par moom xale yi la bëgg a bëreel. Mhm. xale yi la bëgg a bëreel ko moom moom li des ci kale yaram. moromam yi nga xamante ni daanaka mëgante dara daal la bëgg a bëreel. su boobaa di am bés de Sa Thiès rek raqi Balla Gaye ji man bis mënatuma yéem ba mu paas ko ak kele bi bis mu bala daa am kele moodu bis mënatuma yéem ci àdduna hmm. am naa bis bu ne hmm. billaahi wallaahi taalaay ku war ñaay ba ja wàcc ko loo war a lu ne rek daanaka ak warin la rek yàlla mooy li ma wax sànq rek ma gars yi ñu ngi taxaw mën a leen hmm. nag bu mag bi li ko tëral mënu fee bàyyi bu ndaw bi parce dañ doon wax ci combat ci ñaabu ndaw bi ay yooyu mën a leen. Mhm. li fi jëlee ñaabu mag bi moo fi jëlee bu ndaw bi rek. parce que li koy maye mi ngi fi kay te yàlla def na ko fi kay. Mhm. wax dëgg yàlla jërut ragal. Mhm. waaw mais sant yàlla rek comme ni ko waxee rek. wax dëgg yàlla. ñun moom ñi ngi fii ci làmb mooy li may wax rek li ñu war a def ci làmb. def nañ ko te xam nañ li ñu yàlla mooy ci làmb wax naa leen ko gis nga. làmb ba dara du dara dama ci doon yëngu maîtriser làmb doon bëree di def lépp ba yàlla ñëw ay dogalam soppi yàlla mooy xool lu ko neex dafa jaam fii kenn judduwut indaale dara mhm. te kenn du dem bu yóbbaal dara yàlla lu mu la jox ci nit la ko jëlee te ko sa loxo bi mhm. est-ce que yaa dégg yàlla moo ma def nii ñi ma nekkal nangul ma ko parce que ñoom ñii ñëpp maa ngi ñoo ma doon nekk di defandoo foofu ñoom ñu dem ba xam li def ci man ñu nangu ko mhm. may ànd ak ñoom yàlla di leen suturaal nit ñi di ci teg seen bët. Mhm. fii tamit àdduna kenn moomu ko yàllaa ko mën. loolu la gars yi lu bari di wax nee na nag saa Touba moom maaraay ci internet bi bari nañ waaye su Touba kenn na ci parce que ay preuve da koy wane fu mu toll. daan ngay wax nit ñi nga xamante ne vraiment bëgg nañoo jëflanteeg yow. su dara nekkee ci yow te muy dëgg bu ragal galaw man du ma tiit man du ma indi mbër di tiit parce que xam naa ne yàlla noppi na. Mhm. tey jii wallaahi la azim duy caaxaan amoon sax lu may sikki sàkka ci sama combat bi. Mhm. billaahi wallaahi taala mais am na ñu lay critiquer nag ñu yàq ne nañ yow mënoo dara ak ay courtier maaraanga ak yooyu wax ah, yaa ngi koy dégg. mais xam nga loolu lu Serigne Touba amul yonente bi amu ko yàlla suñu borom bi ñu sàkk amu ko maam alaaj Hadj Malick amu ko saa Touba mënu koo am. Hmm. mënu wax ba ñëpp nangul la ñaata at 4 ans. Hmm. da nga mos a gis fu ñu daggee sama vidéo yóbbu ma vaar. da nga ko mos a am. Ah? milieu sport bi lamb ji ñu fiy ñëw ak wàll football ak ñi nga xam ne ñoom laa ciy jëflanteel. ah mais ñu ngi yor nit ñaa ngi yor seeni bët di xool de nit ñi fii Sénégal kenn mënul ndax kenn de wallaahi la azim gis nga nag kaay ma wax la benn affaire de fen mun na fee juddoo waaye du fi màggee de Sénégal gii <laughs> lu leer laa lay wax nii mun ngaa fexe fexe fexe ba créé fi ay fen mais mu màggee fi mun jamais lu leer nañ ngay teg ci table bi ñun dañoo toog quatre ans di wane ay preuve di xool combat yi gën a difficile yi gën nit ñi gën a taxaw di nattable boo xam dana amam du am wala diw dana ci du ci ma ñëw fésal sama bopp te du ma reculer te avant combat damay wax après combat ma wax ñëpp gis. Saatouba fàttaloo ñu sa numéro parce que internautes yi dañ may woo souvent di ma laaj numéro Saatouba wax dëgg yàlla te yow sama sama sama wëlëre nga sama xarit nga euh, say numéro moom gratuitement laa koy dugal te duma ci xaar dara ndax dañ koo seq dañ koo dund Euh, fàttalil sa numéro pour nit ñi nga xamante ni vraiment dañ may woo tout le temps naan ma Galo yónnee ma numéro saa Touba yónnee ma numéro sa Touba. waaw xam nga man daanaka amoon habitude sax ñu bari loolu daf leen jaaxal ci man. numéro bi foofu lañ toll. waaw mooy li may wax rek man aw ma habitude sax di jël samay numéro di ko kii mm-hmm. parce que li may wax rek kaay leen moom jarul wax nit ñi li ne ci yow bu dee dëgg la nit ñi ñoo lay wër ba xam fi nga nekk. Mm-hmm. bëri na ñoo xam ne fu la ñuy wër ci sama numéro pour jot ko. Mm-hmm. mais nag yow sama nit nga comme li nga wax rek te internet yi ñu ngi sonn pour am numéro Sa Touba ji gis naa sax ñu bëri bu ñu ma defee interview dañ leen di sonal Modou Anta mi heure bu ne la ko nit ñi di woo waaw heure bu ne la ko gars yi di woo numéro Sa Touba mais numéro bi moom 78 mhm. la 264 94 81 78 264 94 81 ak 78 115 94 33 moom it 78 115 78 459 41 19 ñetti numéro yooyu rek laa yor yoruma beneen mhm. beneen numéro bu leen nit mun di joxe du sama numéro mhm. ñetti numéro yi rek laa yor 264 bi ak 115 bi ak 459 bi mhm. waaw yooyu laa yor quoi. ma ngi noonu numéro saa tubaay noonu ndax ma noppalu sax saa kontaanoon nañ vraiment ci euh, fekk waat la sa kër waxtaan ak yow euh, c'est toujours un plaisir ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk internet yi ñu doon seetaan à travers Univers bu baax rek di jëlee ci bi. dégg yàlla suñu xol sedd na trop vraiment ndax yow moom da nga bokk luñ mënta seddoo muy Serigne Saliou di waxaat sénégalais yi ne leen ñu delloo si waat seen xel ci yi fi am ni ndax yaakaar naa bu yàggul laa fi njëkkoonu jënd ne leen ñi tax nit ñi di raayante kenn du ci dem élection waa la ko jël sa kër Touba vidéo bi dinaa ko dugalaat sax. waaw leen Sonko du dem Macky Sall du dem kenn ku nekk kenn ku nekk sa mbër ngay indi loolu laa leen waxoon li ma leen waxoon ne kenn ku nekk sa mbër ngay indi jëndaat naa fi defaat fi sorti ma leen nañ def ndànk ndax élection yi mun na jaxasoo. li ma waxoon it nag kenn ku nekk sa mbër lay indi moo ci nekkoon mooy Macky Sall indi woon na Amadou Ba samp. ñee indi Bassirou Diomaye fay samp man leen ndax élection yi dina am mm. beneen bi ci topp mooy mm. suñu deful doucement itam mm. kuñ doon séentu mu doon président boo saagul doon dugg kaso waay ku amoon yaakaar nekkoon ci yoon biddiwam taxawoon mu war a jël réew mi boo saagul dana dugg kaso parce que du mu lépp moo ko def boppam mais ñi ko jege ñoo ko yàqal ku ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa morom fekk fa borom gis nga nit dafa am loo xamante ni fii kenn mënul nax kenn lu fi waaye di def ku war ren ba déwén mu jig la nga xam ne mbër nga nit ñi bu ñuy sonn ci yow di daj lu ne ngir yow da koy da koy xam te li mu la wax ni lu të xam yàggut. xanaa dañ koy na daw ñëpp seetaan ko. Hmm. bañ xam ne man ragalu mu ci li may wax. da ngeen gis ponkal mu dugg kaso bu soor yàlla. incha allah lu ma mës a wax gis ngeen ko de. waaw parce que li ma gis wax naa ko dama ko gisoon ci Ousmane Sonko bi ñu koy dugal waxoon naa ko. ne leen dama gis la ma gisoon ci benn mbër ñu dugal ko ci néeg bu lëndëm ba pare tëj ko te loolu dama ko gisaat hmm. te ki ma ko gis dëgg yàlla. ci biir état bi la nekk. ah ah kon kay waa ji Amadou la premier ah, man de tudduma tur. Ah, premier sa nekk ci état bi moom moo nekk candidat yi. tudduma tur de mais li ma li leer ba leer laa la wax li ma gis nii sàgganu dara da ngeen gis ponkal mu dugg laa leen wax man maa leen ko wax fii. saa maa ngi lay jaajëfal nañu nañu nañu nañu luwaat ci kilifa yi ñuy ñuy saraxe suukar su bëree bëri ak mburu hmm. ndax jàmm mun a nekk ci réew mi parce que. am na loo xam ne daal après danañ ci gën a yaatal mais war nañu mën a góorgóorlu ci réew mi ndax jàmm am ci bu baax a baax a baax a baax te yàlla na fi yàlla def jàmm barki yonenti al jërëjëf jërëjëf sa sa Touba la ñu daraloon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax boo ko internet di li la leen indiloon leen di jox rendez-vous très bientôt ak beneen numéro ak beneen invité amaat yàlla sama borom bi suturaal na ma ci defaluma yàlla nag lu tax mu may suturaal saa su ne moo tax fu ma toll dama koy sant wallaahi Euh, sant yàlla bu baax a baax. Euh, euh, tegtalu làmb ji mujj ji lan la woon lan nga mujjoon a gis ci làmb ji tegtal bi maanaam ndax day boot ci mukaay bi mooy genre affaire yooyu noonu ngay wax ko waaw non loolu moom xam nga waxtaan naa ci moom wax ko xamal ko ne ko carrément combat bi fi nga taxawee moo baax parce que làmb ji côté boobu moo baax côté boobu tey mën naa ne njaaytin rek moo fa teg ci mukaayam ñàkk te ci biir bëre bi ci la réeroo ba caatu yoof bot ci mukaayam boobu mm-hmm. jël foofu la amee. mais eh, bisu ñàkk du bisu am Ndiaye Tine dañ koy encouragé mm-hmm. di ko ñaanal yàlla beneen yoon bu amee combat yàlla may ko ndam suturaal ko def na li mu war a def lépp mm-hmm. mais gis nga boo faree ñàkk kenn mënul la taxaw kenn mënul la jàppale mm-hmm. bisu ñàkk moo ñëw démérité wut di encourage di félicité caatu yoof moom it daanaan la mu ngi def ay preuve am ci làmbu di félicité sama sama xarit sama lépp garga garga de tey rek tey ci bëccëg rek bi ma demee këram moom it mm-hmm. moom it mu ngi ko neex a waxal moom it loo ko wax ci làmb da koy def wax dëgg yàlla jox ma it la ma moom léegi nii rek mu ngi may woo téléphone di wax ak man mm-hmm. yaakaar naa moom Zarko ñoo fi waroon daje sax mais dafa am ay gan moo tax may ñoo fi mm-hmm. waroon daje reer si ñaabu ndaw ban erreur la def ci làmb ji waaw ñaabu ndaw deful erreur ci làmb ji li mu ah, daan bëree non xaaral ma wax la rek li mu daan bëree moom la bëree mais dafa daje koo xam ne da ko mag bëree te bëre bi dañ ko bëre avant parce que benn essence sax bëggoon na dëggal boppam moom taxaw mais kenn du bàyyi sa mënin Zarko dañu taxaw mu ne ko waa ji bu ko may mu xalaat seeree ko nga jege ko dafa bëgg a njëkkalante yow suuf gi mais fexeel bu bu mu la féete suuf bu ngeen dajee féete ko suuf yow parce que boo ko jàppee laa mu jeex combat bi doonul combat boo xamante ni yow da ngay jàppanteeg moom muy jàpp sa ngemb ngay jàpp ngembam déedéet kii warul laal sa ngemb ba keroog muy daanu Mm-hmm. loolu laa ko am mi ngi toog. mais ñi ñuy wax ni euh, Niang bu Ndaw dafa xawoon a ragal sóoraale de trop Zarko looloo ko tax a daanu aussi loolu lan nga ci toog. non xam nga ci biir bëre bi sax foofu mënoo faa wax ne ko Niang bu Ndaw dafa ragal Zarko parce que li mu daan bëre la bëre rek stratégie bi mu daan teg reculer dox latéral kërti kërti dugal dugal arrêt xam nga loolu la daan loolu la def rek cokkaas la gauche di xaar nga jóg mu mu dugal boppam jël la. te Zarko xaar na ko ci loolu mais comme ni Zarko wax rek. Mm-hmm. Zarko ndaama la bu sàgganee ba njool di ko féete suuf. Mm-hmm. Ah, dañ ko koy laaj tamit mm-hmm. loolu eh, fi mu ne nii Zarko dégg nañ ni jël na combat Bébé Diène déjà Bébé Diène ci défaite la jóge maanaam c'est c'est c'est une bête blessée. est-ce que Zarko jooy jotul woon nag vraiment mu bàyyi booy yi te te jéem a jëm ci kaw nag tamit jàpp booy di daan ni rek yaakaar ne yaa xam nga côté boobu moom li may wax rek wax naa ko sànq ci oto bi ma ne ko doo ngi jàpp booy yu mag yi di daan nga jàpp booy yu ndaw yi di daan <laughs> te ñoom ñaar dañoo xaw a yem quoi xam nga dañoo xam ni ni mbër di daane te gis nga faaw nga xam leen pour lu mën leen daan Zarko ci entraînement yu njëkk la doon entraîné dafa xam yoonu entraînement Zarko bu waree am doole xam na nu muy def ba am doole bu bëggee am condition xam na nan lay def ba am condition. Mhm. bu bëggee am réflexe xam nan lay def ba am réflexe. dafa mhm. yaa ma dégg lépp lu làmbu laaj. Zarko xoola ñi mu daan ñëpp kenn bokku si sa morom dañ doon wax tël. Mhm. yaa am da leen tël. ñii mu bënn leen ñii mu fàq leen. yaa ngi dégg kii mu taf ko plaqué ko. ba pare bi mu ko jëlee dàq ko dem ak moom da ko taf rek braqué ko. parce que bu demoon ak moom booy bi mën a résister tuuti boobaa bu rocc ko Zarko mën na def kaat appui mais Zarko bi mu ko jëlee da ko orienté. ba ni muy daanoo ba loxo bi génn non lu bàyyi ci ci suuf la ko teg fii fi mu ko téye moo baax. mais Bébé Diène aussi dafa mën a bëre euh, Satou baax Bébé Diène champion la. waaw Bébé jën daanaan la wax dëgg yàlla ndax lëg loo ko bañ ba nangul ko noppam yu gudd champion la. mais mënut doon champion ci kaw Zarko lamb moo leen boole rek parce que Zarko patron am la daan waaw lamb moo leen boole comme li ñuy wax rek Zarko dafa toll foo xam ne ci lamb day liggéey luñ ko fay mu arrangé ko day dem bëri ñu combat boobu it gars yi ñu ngi wax coow léegi mais man côté boobu bëgguma ci sori parce que Zarko sequma moom di ko tànnal ku muy jël ak ku mu jël li ma seq moom daal mooy bis bu mu am ma taxaw ko jàppale ko. Mm-hmm. waaw incha kon d'accord nga ci bis non combat bu mu jël day liggéey rek làmb mooy métier am wallaahi mooy métier am te ki koy kiy tëgg combat bi ki ma ci dégg ñu ko ci waxit suñu nawle la xam nga man daal wax dëgg yàlla moom duma ko jàppaloo duma ma ko bàyyiloo li ma war daal sama diggante moom mooy bis bu mu am ma jàppale ko ci ba lu ñu yàlla may ñu jël ci kàttanu yàlla yonent bi incha allah euh, incha allah tey taxaw nga ci bés bi waaye ci vidéo yow euh, yaa ngi mel ni yaa doon bëre yow it ndax euh, sa photo moom fees na ci réseaux sociaux Euh, à un moment donné gis nañ la nga jàppante fa ak benn xale ñu ne dañu sàccoon sa téléphone. <laughs> waaw de dañ ma bëggoonoo kii rek <laughs> saax saaxee ma daal ci diggante bu gàtt laay wax ak Zarko noonu bay tourné rek ñu këf sama téléphone bi. këf ah, booy da ko këf ma turne yem ci ñoom xam nga. Mhm. ma teeku nag ne leen nag sëñ bi bu fekkee bolog yee tax ngeen yaakaar ne sama alal day demee noonu <laughs> da ngeen di nax seen boobu de. Mhm. Eh, xam nga après bi ñu xamee ne itam caaxaanu ma ñu lijjantiwaat seen biir rek ba indiwaat ko joxaat ma ko. ah bon téléphone bi ñëwaat na. ñëwaat na ñoo joxaat nañu. mais bi nee na da nga koo gaañ de saa. ma ko sax xanaa kay. Hmm. ñoom ñoo xawoon a doy waar rek. ah mais gis nañ la aalu yi de. aalu bi aalu bi moom gëj naa ko gis 2000 ay sa aalu bi gëj naa ko gis. ay waaw mais xam nga tey ñoom it dañ ma dañ waruñu ma waruñoo dund ak man loolu bu fekkee damaa ànd ak seen mbër ñu ne seen mbër la ñuy supporté ma ànd ak seen mbër kay ba mbër bi am ndam waruñu ma jéem a jël nag yëfi sëñ bi nag <laughs> ah, waaye wax dëgg yàlla nag liñ ma bëggoon a fayee nag moom baaxul moom <laughs> moo tax nga indi jikkoy ceeb jékki-jékki rek laal iPhone u sëñ bi man leen ah. iPhone bi 12 la wala 13 sëñ bi tey day doonub dongo mu ne bi yéen moom ba keroog iPhone bi jënd rek waaw. dégg naa nga ni leen ku bëgg gis dee tey rek taxawal. man kay li ma ci wax li ma ko wax dafa leer naaj. ne ko moom téléphone moom day dem waaye nag bakkan dana fi rot moom. moom sama alal demee noonu. gis naa nga téye bi rek waa ji naan la may ma ma wax la ma ma wax la nga ne ko doo dem de. non non sama alal du demee noonu wax dëgg yàlla dafa am loo xam ne dafa yomb trop. Mhm. nit magum jëmm taxaw di waxtaan nga jékki-jékki këf téléphone ci loxoom ba pare bëgg a dem loolu mënul nekk tamit. iPhone 12 la wala 13. boobu 12 bi la. 12 bi la booy tamit xam nañ ne iPhone yu <laughs> ah, mais tamit loolu da loolu dafa dafa rafetul sax. parce que tey gis nga loolu amul sens sàcc yàkkamti sa wërsëg la li nga war a am da koy am buñ la ci gaañee wala ñu raale ci da ngay perte te gis nga borom karaw gu ñuul ñàkkul dara. ci àdduna. Hmm. gis nga li nga sàcc sax ba dem ak moom yaakaar na lii nii tey wallaahi la azim. même boo ko sàccoon ci jour boobu dana tegu sa loxo. li yàlla rëdd sa jëb yi allah kulli alin amul benn bis boo xamante ni dana romb te li war a tegu sa loxo bi tegu. ku am yàlla la ku ñàkk yàlla la. nit da ngay gore da ngay doylu am na loo xamante ni gisoo ko sàccee sàcce sàcc ba tekki continuer amul. trop tard fa muy mujjee deewu kaña rek. wala ci jafe-jafe wala tolof ndax àq baaxul. tey ji nga képp ku koy def war nga xoolaat sa bopp xool te du la jëriñ dara ji nga alal ju léewut wallaahi azim boo ko jëlee comme zéro comme ngelaw day gaaw du la jëriñ dara ci àdduna. su ko saa joon dina tooñ client yi. non dañuy woote rek saa Touba dañ koy moo mënul woon dem laa ko def sax te xoole li ci gën a garaaw boobu maa ngi am. Ah. gan guy jóge ci yoon bi. jóge jugee sori di ñëw jëm si Dakar ngir sama jëmm. mi ngi ci biir. feebar ma di ko gàttandu. di ko tegtal ñu këf téléphone bi. <laughs> te yorut bu numéro boobu.